li ñuy def nag mooy ànd ak euh, Mamour euh, dem ci euh, daara yi tey nga ñuy yóbbu daara joo xam ni parcelle la nekk. macha allah Baye Cheikh comme ni nga ko waxee rek daara ji ngi Parcelles Assainies ci unité 8 parcelle nag di daara boo xamante di gox boo xamante ni gox bu bari daara la moo tax bari na li ñu fay dem lool ñu nga demaan nag ca Parcelles Assainies unité 8 ci daara bi ñuy duppee Serigne Saliou Mbacké soxna Khady Diaw moo fa nekk li def liggéey bu am solo ci wàllum nga xam ne daara ji ma ngi koy doxee waaye ah, bind biñ ci sësale ku ne xam na ne weer wi di weeru mars dafa am solo lool ci jigéen moo tax ñu jël jigéen ak alquranul karim moom itam indi na ci ay leeral yu am solo dañuy dem seetaani élément bi suñu ñëwee yaatal ko rafetlu seen ñëw bi ngeen ñëw tey ziar si daara Serigne Saliou Mbacké mu ngi sosu ci année 2012 depuis ñu nekk tout tànk jàng xayrukum la ta'allama al-Qur'an wa 'allama ci leen façon ci suñu xol na ñun bu ñu màggee bëgg nañoo doon jàngalekatu al-Qur'an xale yi li fi nekk fii ci xale nag mat na cent 150 euh, xale yoo xam ne ñu ngi ci biir daara ji ay góor ak ay jigéen daara ji yemul ci alxuraan rek ndax dañ daan seetlu ne xale yi bu ñu jàngee alxuraan ba pare génn bu ñu demee noonu jàngi français dinañ fàtte alxuraan ji ñu bëgg nag euh, téye leen ci daara ji ba ñu jeexal cycle primaire bi seen alxuraan gën a dëgër xale yi fi la ñuy defee lépp maanaam añ reer ndékki fi la ñuy fanaan fi la ñuy féete daal tabaski ba tabaski rek la ñuy dem seeni i waajur itam dinañ ñëw weer bu ne benn yoon euh, muy dimanche bi njëkk ci weer bi ñëw seet si leen maslaa waale ak euh, daara ji wannaxla wa zarra muxtalifan jafe-jafe bi nga xam ne itam daara jàng ngi koy gën a dund ci jamono yii muy problème mu location ndax te weer ak moromam jege na lool alxuraan moomul dàqe moomul génne kenn ku fay di nga ko téye ku fayul itam ko téye loolu daal am nañ ci jafe-jafe muy location ak wàllum dund bi sëñ Maamun laaj nga ma laaj bu am solo muy jigéen ak alxuraan daanaka ca cosaanu alxuraan ba tey jigéen mësta tàggook alxuraan ndax naa Xadiija radiyallahu anha bi sayyidina Muhammad eh, suñ borom di wàcce alquran ca gaarul xiraa mu koy wàcce ci moom eh, ba yonent bi jóge fa ak njàqare ba mu ñëwee itam sayyidatuna Xadiija moo ko doon dalal booy topp ci saari di xool di nga fa gis lu mat juróom-ñeenti saar yoo xam ne yépp suñ borom mu ngi wax si biir di ci tudd jigéen jag ñëw ba ci benn saar nag muy suratu nisa mu jagleel ko jigéen ñi kon jigéen xaw ma ku xamul boppam wala ku réere boppam waaye jigéen waru cee bokk ndax suñu boroom daf ko xeexal ay droit wam ca ba dara dul dara wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin sadaqallahul azim mu ngoog euh, jooju euh, Mamour ma nga euh, Parcelles Assainies ak euh, Seyda Soxna Khady mi ñu dégg léegi mu wax euh, ci xale yeeg ni ñu leen di jàngalee. macha allah moom jàmbaar la Baye ndax mi ngi sanc daara ji ci atum ak léegi gannaaw ba mu jàngee alxuraan ba mokkal ko wëlbatiku nag sanc ko ci atum 2012 ak léegi toll ci juróom-ñeenti at yu manqué. Mhm. mu bari lim boo xamante ni ngi fay mokkalee alxuraan wax nañu ko toll na ci juróom fukki nit yoo xam ne moo leen jàngal ba ñu mokkal alxuraanul xale yi nga xam ne sax dañuy jàng ba mokkal alxuraan da leen fay teewaat buy neex seen waajur ngir di leen jàngal français ak arab ngir ñu gën a bënal jëme ci xam-xam mu doon jàmbaar lool di ko ñaanal rek li muy joytu ci daaraam jooju ñu dégg ko sànq ci ay kàddoom yàlla na borom bi saafara lépp di lancer message ci bonne volonté yi nañu gën a gëstuwaat daara yi gën a jàppalewaat yi ndax ñoom kat ay jàmbaar lañ te defe naa ne ñi ngi yar suñu xale yi nga xamante ni ñoo dëkk ci réew mi di def ñoom alxuraanul karim di ñaanal xale yi nga xamante nag ñoo fa nekk di jàng alxuraan borom bi defal leen barkeb alxuraan may leen ñu mokkal ko ca na mu gën a gaawee ngir ñu mën a duggaat ci yeneen branche xam-xam yi Baye Cheikh bonk bi ñu ci sësale nag muy jigéen ak alxuraanul karim moom sax mu indi ci lu baree bari bu ñu jigéen ak alquranul karim dañuy delluwaat rek ci cosaan ku ne xam ne ne bi ñuy wàccee alquranul karim ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jigéen da caa participé ci naka mm. soxna xadija bi nga xam ne radiallahu anha moom moo nekkoon soxna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi jibril di ñëwal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wàccee ci moom alquran naan ko iqra mu am jaaxle lool xamul lu mu koy tontu bu ne jàngal mu ne ko mënumaa jàng jàngal mu ne ko mënumaa jàng yonent bi amul jaaxle delluwaat ci soxna xadija ne ko li may dikkal daal yéem na ma mm. jàngal rek la may wax mënumaa jàng ko defee nag soxna xadija lam ko baaxee ñu naan jigéen dafa participé ci alquranu karim moo ne ko saa bu la waxee jàngal ne ko lan laay jàng keroog ba jibril ñëwaatee ne ko iqra dana ko lan laay jàng mu ne ko bismi rabbika alladi jàngal sa tur borom kon jigéen participé na ci alquran ba yonente bi sallallahu wasallam mën a euh, jàll étape boobu bu ñu wax jigéen ak alquran baay cheikh dañuy delluwaat tey ku ci mel ni euh, soxna Aïssa radiallahu anha gis ne ku fonkoon alxuraan la daan ci nekk guddi ak bëccëg joxoon ko léppam keroog ba ñu ko laaja an lan mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane kaana xuluquhul quraan jikko yonent sallallahu alayhi wa sallam daal mooy tax mu mën a tontu loolee nag nekk gi mu ci nekk jox léppam alxuraan tax mu mën caa tontu mu bari nag lislaam yàgg ay jigéen yoo xamante ni ay jàmbaar lañ ci téere bi di alxuraanul karim gannaaw ba mu xeexalee jigéen sax ay duraam ndax jëlee na ko fu sore sori indi ko ci lislaam indi ko ci lu wóor xeexal ko ay droit am ndax fu mu darajaalee góor rek darajaal na fa jigéen moom alquranul karim te talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslima kon sàkk xam-xam ni mu waree góor itam noonu la waree jigéen kon mhm. eh, lislaam wala jigéen yàgg naa am nu mel ak alquranul karim bu jugee foofu sax mën nañoo jéggaani ñëw ci réew mi ku ci mel ni eh, soxna aswala wala soxna jaareetu buso nga gis ni meloon ak alquranul karim gannaaw ba ko jàng ba mokkal ko bind ko wax nañ ci histoire ne saa bu nekkul ci liggéeyu borom këram rek mu ngi téer ba di jàng alquranul mhm. karim ku ci mujj rek soxna euh, Mariama Ñas radiallahu anha yàlla na yàlla dolli ko yërëm nga gis euh, dundam gépp da ko joxoon alquranul karim tax sax ñu naan ko xaadimatul quran ginnaaw bi mokkalee alquran ci atam yu néew wëlbatiku sanc ay yu baree bari ba noppi doon jigéen di jàngale alquranul karim kon jigéen am na nu mu yàgg a mel ak alquranul karim bu nu gisee nag ni jamono di doxee liñ ci bëgg a jàngale li tax sax ñu gën koo jukki mooy jigéen war na gën a xamaat cëram ci lislaam ndax am na fan ko jëlee fu méttee mét ndax laataa lislaam a ñëw bu njëkk ba ku juróon jigéen da nga koy da nga koy faat mm-hmm. da koy suul doo ko sax faat da nga koy suul mu métti woon lool mm-hmm. alxuraan ñëw xeexal leen droit boobu bañ jotaat ci bu góor amee ñaar jigéen dina am benn kon jigéen ko war a fonk alxuraanu karim la bàyyi seex ba pare jigéen bu euh, jàng alxuraan wala nga fekk jigéen mu yiw seetlu lool yore kaamil dara dàqul lool dara dàqul loolu. Mm. ngi ndokkeel soxna Khady jaw Khady di ndokkeel sunu doom yooyu alaaj pap mm-hmm. sunu jarbaat yooyu. Mm-hmm. waaw li nga wax rek alaaj pap mm-hmm. jigéen bu toog diggu këram. say njaboot wër la. nga julli. toog. génne kaamil di jàng. loolu dafa rafet sax. alaaj pap loolu rafet na. dafa rafet sax de. boori tàkkusaan noonu. Eh. nga julli ba noppi. yàlla boo sol lu weex taal. wallaahi yiiw alaaji yiwoo baax nga tiim alquran bi mu leer la ni tiimoo ko di xool yaa ngay jàng hmm. am na ñoo xam dañ koy tiim di xool di te xamuñu ci dara waaye nag yaa ngi am yiw xool ga rek yaa ngi am yiw hmm. rawatina boo xamee nag ba koy jàng hmm. waaw afdalu maa yutla day defar bët sax dégg naa wallaahi day faj bët afdalu maa yutla wa maa yuqaalu wa xayru maa yanfaqu fihi maalu xiraatul quraani inda naas lépp lu gën ci lu ñuy liir wala nu koy wax mooy jàng alquran moo tax bàyyi sëriñ Saalu bàyyi sëriñ Faalu sëriñ Bamba dafa wax ni moom alquran kalaamun xadiimun laa yumallu samaahu tanazaha an xawlin wa fialin wa niyati mu ni alquran wax la ju njëkk kalaamun wax la xadiimun du njëkk laa yumallu du yokkat samaahu aji déglu alquran nga teg sa rajo rek di déglu alquran mm. mu ne ndax tànn zë sell na mm. an xawlin ci wax mm. wa fialin ak jëf wa niyati ak si mm-hmm. salaam Seydil Hadji Malick bàyyi Sëriñ Babacar nee na ni ñuy xamee sa cofeel ci rasulullah yi mooy ni nga mel ci alquran mm-hmm. bu fekkee booy déglu alquran yëgoo dara mm-hmm. yow yëgoo dara ci rasulullah da ngay wax nii rek inna alqurana huwa almizaanu taarifu minhu ma xawayta min al aswaaqi wa sadami nee na alquran mooy balance bi nuy xamee sa cofeel ci rasulullah jàppal ni nee na innal quran naka alquran mu ni huwa moom al mizaan mooy ba taarifu minhu ma xawayta ci la li nga làq min al aswaaqi wa sadami ci cofeel ak taruk cofeel ci rasulullah ni nga mel ci alquran ñu ni ni nga mel ci rasulullah alaaj pap jigéen ju jàng alquran eh. ah alaaji pap alaaji pap am na koo xam ni am na koo xam ne jàngalul ay doomam alxuraan mhm. nga génn àddina woo jànkatu kaamil yi am na ñoo xam ne dañuy wër di jàng kaamil te mënuñu ta moom la ngay <laughs> boo jàngul doo mën a xam ndax jàngal nañ la déedéet baax wala lu baaxul mhm. <laughs> xamuñu dara ah. billaahi lazi ah. nit war na fi daawul boppam avant muy dee mhm. xoolal nit war ngaa fi daawul sa bopp alaaj pap avant ngay génn àddina nit ki ci boppam nit ki ci boppam saa yoo jullee nga fi daawul sa bopp defal fatiha salaatu ala nabi def téeméeri bismillahi rahmaani rahim ak fukk ak benn ak fukk ak ñeent 114 bismillahi rahmaani rahim ne yàlla lii jiital naa ko sama biir bàmmeel wala nga def 41 lixlaas balaa dee di ñëw ndax day bette day bette alaaj pap almawtu yëti baxtatan waaye wal xabru suñ ko xul amal alaaj maamur jërëjëf yal na yàlla barkeel la amiin ngay toppee daara yi xam ne réew mii nag daaraa ko sos daaraa tax nit ñi yeewu civilisation daaraa tax nu xam ko kon yàlla yàlla gën la barkeel ci jar yonent bi alaaj pap voilà asan ndeyu daara yi bëri lool Euh, euh, euh, daara yi ñaare boo ca duggee di ko fekk ay jigéenu jàmbaar c'est vrai que góor ñi toujours la ñuy wax ci daara yi mais jigéen mhm. dafa dafa dë dafa ëppati solo mhm. ci daara xam nga xam naa sax ki ngay xalaat <laughs> Seyda lay xalaat yaayam mais garaawul man da moom li jënti na boppam yow léegi ñun nañu la jënti suñu bopp rek moom li jënti na boppam yaay taalibe <laughs> waaw <laughs> Seyda lijjanti na boppam ba pare moo tax nañu lijjanti suñu bopp te ñaaxaat suñu jigéen ñeeg mhm. euh, suñu yaay yi ñu fexe ba lijjanti seen bopp xam nga alquran léppam mhm. mhm. bénéfice la pour ñun suñ ko xamee bénéfice la pour ñun suñ ko gëmee bénéfice la pour ñun suñ ko suñ si dogoo bénéfice la pour ñun suñ ko deful itam bénéfice la pour ñun ndax yàlla moo ne si alquran mu ne wa innahu la zikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusalun ne na ko alquran bi seen teraanga àdduna ak àllaaxira si la nekk yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sa xeet te ëllëg danañ leen laaj naka ngeen doon doxale seen diggante ak alquranul karim xam nga alquran bi mu ñëwee si sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa changé société bi changé environnement bi ba changé àdduna bi nga xamante nii sax si la ñu nekk doon ko dund ndax jigéen ak alquran la ñuy wax mm-hmm. waaye boo xoolee jamono sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mu amoon ay góor ñu leen tudd ay saxaaba noonu la amoon ay jigéen yi nga xamante itam ñoom dañu doon wopp alquranul karim ñu leen woowee ay saxaabiyaat maanaam ñi nga xamante ni dañ doon nekk ak yonant bi mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam di ko jàppale si mission bi mm-hmm. waxin la déggin la laaj jàppale si mission bi mooy ku ne xam na ne góor am na fu muy tollu faw day soxlaa jigéen mm-hmm. jigéen ñi teel a xam loolu la preuve jigéen moo njëkk gëm yonant bi sallallahu alayhi wa sallam di suñu yaay sayyidatuna Khadija radiallahu anha lu mu ko gëmee alquran Mamour junj na ko léegi ba mu ñëwee ya ko sa dal yëpp dal ko mu xam ne lii nekkul caaxaan dafa ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te bari waay na da nga xamante nii jigéen dem na ba jaaxle ba nangam alquranul karim moom moo si na xam nga alquran dafa yéeme boo xoolee sa diggante sa borom boo bëggee mu ratax jëlal alquran teg ko sa diggante ak moom gis nga tey jii nii booy jàng alquran sa kër guddi mm-hmm. ni ngay taxawee si kaw suuf mm-hmm. di xool asamaan si di gis ay bidéew mm-hmm. yu bëree bëri lii bidéew la lii bidéew la fii ñuul fii leer fii ñuul fii leer waa kaw noonu la ñuy xoolee suuf di gis muy leer kër yi ñuy jàng alquranul karim guddi moo xam da nga ubbi sa kaamil moo xam da ngay naafi la te loolu dafa nekk la nga xamante nii day nekk benn benn benn lien direct si diggante jaam bi ak boromam subhanahu wa taala alquranul karim moom moo si jiitu mm-hmm. rawatina jigéen ba nga xamante ni da nga koy jàng mm-hmm. doo jaaxle mm-hmm. doo tiit te bunt boo fëgg balaa ngay fëgg sax borom bi subhanahu wa taala ubbil la bunt bi parce que yàlla moo ko waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ko seen teranga àdduna si la nekk ak àllaaxira waaye xam nga lan moo tax alquranul karim gën a neexati day fexe alquran soo koy jàng junj ngeen ko léegi yàlla nee na alquran am na la nga xamante nii day faj mhm. li si xol yi ak li si yaram yi ñeel ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko gëm mhm. maanaam boo jàng alquranul karim mhm. lu bëree bëree bëri xanaa xamuloo ne tey ngay jàng al alquran ay aayat salive yi nga xamante ni moom ngay won naa suwaat mm. day faj mm. te ay leer lay doon ci sa sa yaram amul sax ma dem ñëw ndax benn lettre alquran boo jàng yiw la benn lettre alquran boo jàng tuyaaba la mm. itam benn lettre alquran boo jàng bu ne mm. leer la dama sallallahu alayhi moo ko wax mm. moom moo ne boo jàngee alif alif rek nga wax ko am nga dix tuyaaba nga ne laam amaat dix tuyaaba nga ne miim am nga dix tuyaaba boo nee alif laam am nga trente saxaaba bi ne ndax alif laam miim dix la mun ne ko déedéet dama ne alif dix laam dix miim dix boo ko boolee muy trente ba pare ëllëg buñ ko tegee balance buñ ko teg yowmal qiyaam mu daanu maanaam mu rës ndax yiw wi si nekk ak barke bi si ak li nga xamante ni moom lay def si diggante nit ki ak jaam ak boromam mhm. subhaanahu wa taala woowu am solo sax doguma la mhm. Cheikhul Khadim dafay wax ne wa arxabul asiyaa lil amwaati rudda ila dunia ma al xayaati wala sawayxatan faqat li yaamalu saalihatan tanfaahum in rafalo li ñi nga xam ne dañoo faatu de boo leen laajoon tey ani ñoom lan lañ gën a bëgg mooy dellusiwaat ci àdduna ba am benn mooy oh. jàmm ko yàlla xam nga loolu mënul nekk kon mi ngi soññ ki nga xam ne mi ngi nekk ci àdduna ngir mu góorgóorlu ci yiw suñu maam jooju nga wax cheikhul xadim radiallahu taala anhu lu mu wax si alquranul karim yaa kitaabal karim yi anta wax wa xalili wa qabla kunta tabibi mooy li ma wax léegi cheikhul la radiallahu anhu dafa xool alquranul karim ne téere yàlla bu tedd bu sell bu yiw bii anta habibi yow yaay sama soppe ku mën a bëgg naa la ku dul téere bii xalili yow yaay sama xarit dafa xaritoo woon ak alquranul karim moom suñu maam cheikhul xadim radiallahu anhu mu am bu mu bett kenn mhm. wax naa ko barke démb maam moor ma ne <coughs> nee ne sëñ Touba li mu am lu ñu laajee sëñ Fallou radiallahu anhu lu ko may mu ne xaw a dee mhm. maanaam dafa am la nga xamante nii dafa am prix mhm. il faut nga fay prix bi pour nga mën ko jot wax wa qabla kunta tabibi mu ne ko ba dara laata xew yow yaa nekk sax sama médecin bi may faj mais nag si kaw nga xam naka nga siy fajoo moom alquranul karim yaa ngi koy jàng sa kër barke du fa jóg nag ma déglu bu baax mm. kër gu ñuy jàng al mm. barke du fa jóg mm. kër gu ñuy jàng alquran ñàkk du fa dugg kër gu ñuy jàng al alquran leer du fa jóg kër gu ñuy jàng alquran sécurité du fa jóg kër gu ñuy jàng al alquran jàmm du fa jóg wallahi alazim amul sax ma dem ñëw ndax suñu borom subhanahu wa taala moom moo ko tëggee noonu ndax moo tax soxna yu nañu gën a góorgóorlu si alquranul karim di ko jàng ndax di ñaan di ñaanal seen njaboot suñu borom subhanahu wa taala di leen defal lépp la nga xamante ni mébép nañ ko si seen njaboot mm-hmm. waaye fi may jéexale mooy boo gàddayee alquran wan ko gannaaw doo ko jàng mooy ñoom salaa salaam doon wax mm-hmm. nee na ñekkal ñeent yi te fexeel ba boo bul doon juróomeel ba mm-hmm. boo ko doonee rek juróomeel ba alku nga ñu ne ban ak ban ak ban mun a jàngal wala nga bëgg ku jàng wala ngay dem fu ñuy jànge wala ngay déglu kuy jàng nee na ñeent yi boo si doonul benn moo yow bëggoo si benn ah. nee na juróomeel ba mooy bëggoo si ban mooy alku nga loolu loo siy déggee mooy alquranul karim nañ ko gën a fonk gën ko toppatoo ku ko manul nga fexe noo ko ñab ñabee bi yom salaa sallam nee na tey jii nii booy jàng mu gaaw alif lam mim zaalika kitaab laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin nee na dañ lay bindal benn tuyaaba si waxin mm-hmm. waaye ki nga xamante day ñëw naan ah ah mm-hmm. alif laam miim nee ne dañ koy doublé ñu ne ko lu tax mu ne coono ba mu say daj ak njàng ma xanaa kon ñoom ñoo ëpp bénéfice tey jii ne kon loolu lépp dafa nekk la nga xamante ni jarul xeet te boo bëggee dégg dëgg nag moo njëkk te mooy mujj de tey jii nii oustaz Pape ji ñu ne ko léegi ku dëddu lu ñuy wax nañ seet ñu ko jàngal al quranul karim ndax yaakaar yërmande ak njëgal bu bàyyeekoo suñu borom subhanahu wa taala jëm si ñoom kon si gàttal képp ku am ku dëddu al quran jàngal ko fatiha ñàkk ixlaas mm-hmm. ku ne mën na ko nga jël yool bi yéene ko ko borom xam-xam yi am nañu ne boo ko defee jàng nga li nga xamante moom moo di kaamil mm-hmm. mu am yoolu kaamil ba nga am ko bàyyi mm-hmm. dañu gën a góorgóorlu ci alquran rawatina soxna yi temps bi ñuy jox snap temps bi ñuy jox twitter temps bi ñuy jox instagram nañ ko sax xaaj bu dee une heure de temps la par jour ñu xaaj ko 30 minutes ñu siy jàng. parce que léegi àdduna développé na ba nga xam ne ni euh, lépp disponible na ci internet. lépp mu ngi si internet bi loo bëgg mën nga ko téléchargé. waaw ah, mën nga téléchargé ay application yoo xamante ni mën nga ci am ay hadis. wallaahi mën nga déglu alxuraan en permanence. Mm-hmm. te euh, ku ne xam ne ni jigéen moom bu dee kër gouvernement la wala àdduna gouvernement jigéen mooy ministre de l' éducation. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, mooy yar jëkkër euh, yar doom yar société bi. donc imaginer jigéen bi ci kër gi. maîtriser alxuraan. loolu avantage société. avantage borom kër gi doon itam avantage te application yi bari na tey par exemple application bi ma yor dañ ko bind en arabe bindal la ko en wolof bindal la ko en français donc voilà pour nga te alquran la te c'est pragmatique na ah, léegi jàng yomb na jàng jàng yomb na njëkk ba jàng yomb na ah, ku ne man nga jàngal sa ah, bopp c'est juste que dafa laaj li nga xam ne moo di pas-pas ak effort parce que tamit oustaz Pape junj na ko léegi nit ki loo bëgg lu nekk da ngay fexe saa su nekk nga say nekk mm-hmm. loo bëgg lu nekk parce que tey jii nii kenn bëggul mm. boo génnee àdduna duñ la ñaanal mm. te ñaan bii gën si ñaan yi mooy ñu leen jàngal alquran dama sallallahu alayhi waxoon na ko nee na ñii di génne àdduna ngeen leen teewe mm. leen leen jàngal bi nga xamante ni mm-hmm. moom moo du sóoratu yaasin mm-hmm. te am na saar si alquran ba nga xamante ni boo ko jàngee salaay mm-hmm. salaam nee doo dégg doo gis doo yëg mbugalu bàmmeel ah. muy lan suratul mulk tabaraka alladi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladi xalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan ba aaya ba saar ba jeex man yatikum bi maa in na in yaakaar la saar bi jeexee donc saar boobu rek suratul mulk sallallahu alayhi wa sallam boo koy jàng mhm. doo dégg doo gis doo yëg sax mbugalu mbàmmeel mhm. kon ñu xam ne loolu neex na kon way juri nañ si gën a góorgóorlu te fexe alquran jiitu si dënnu xale yi mhm. parce que c'est très important parce que réew mi itam daara moom moo ko sanc mm-hmm. te wax fa dëgg yàlla mm-hmm. loo xamante ni moo sanc réew mi nag mm-hmm. loolu jarul sàggane ndax saa yu ñu jaaxlee si daara ji la ñuy dem kon nañu gën a fonk daara ji gën a fonk alquran buñ ko foyee buñ ko caaxaane te di koy jàng yàlla defal ñu sutura xewal adduna ak àlaxira àllaaji mu nga jërëjëf Mamour jërëjëf Baye Cheikh solo loolu jërëjëf Mamour jërëjëf macha allah gën ci jàppale euh, suñu doom yu jigéen yi dañ ci gën euh, nañ leen gën jàppale euh, bu ca kanamee